ama bébé ama bu yaraax. waaw ah, yaa bébé ama bu yaraax. waaw man la waaw. mais lan la ñu xaar ci bis bi yaakaar la. waaw ah, mag saa njàmbur la. saa njàmbur meen. waaw bébé ama sax xam nga ki nga jël. non xam naa ko bu baax a baax a baax xam naa ko bu baax ah. waaw. te maa fas yéene tey xool ànd ak samay mbokk yaa ngi gis. lépp yaa ngi fi indi. ah indi li yow. ah xale bi mobilisé na de. lii ku nekk sa ginnaaw looy yëg. non sant yàlla rek sant yàlla xam ne. amaana man dama nekk ndaw boo xamante ni ay mag ñoo topp sama ginnaaw ba Serigne Touba damaa xam ne man dama def si euh, li gars yi am si a a sa ñaari combat bii mooy sama deuxième combat deuxième combat maa nga indi mbooloo waaw gis nga parce que ama lan ñu dul ñii parce que Alxuraan ñii laaj kilo waa Yarax laaj kilo ñu ma def lépp ci kanam tuuti ci biir géew bi jaajëf ndeysaan xale yaa ngi noonu ñi ñoo bëgg seen mbër oh oh dëggal li ñuy way jëlal ma lii kooku de moom mooy mooy teg na ko xanaa boobu mooy mooy mooy sa géew ba la koy eggalee loolu lañ ca bind de mbër nuyu naa. waaw jaar na la. ci loo ne. sant yàlla. bi naa la. booy ñaambur. booy ñaambur. Mm-hmm. tey gis lu mu laaj sa diggante kan. su ma déggante ama dal rek la laaj. dal dal si jaamu. adversaire koy bëreel. ama bu yaraax laay bëreel. yii mbooloo mu bëri la fi indi. waaw dara. waa Njàmbur ñu ngi ne la toog ragalu ma loolu. Njàmbur nga jóge. maa la wax loolu Louga ba Saint-Louis ñëpp ngi ne la toog. mais lan la ñu xaar ci bis bi si kanam. lépp lu mu laaj dana ñëw incha allahu rabi waaw. day gaawal laaj rek mën na gaaw mën a yéex. ba tey yéen waa SBT Média booy Ndiambour la nee na day gaaw wala day yéex. woon ginnaaw Boy Ndiambour moo ñu woon kanam ndeysaan xale yi tolloo nañ bokk nañ takkaay ndeysaan xale yi jekk nañ macha allah. arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li mu bañ ñii seetaan SBT Média maa ngi nuyu El Hadj Mas Ndiaye di nuyu Jafe xale ba toj na nen moom moom moom Boy toj na nan léegi booy ñaambur lañ jàkkaarloo ama bu yaraax moo ñu wan ginnaaw nii ndeysaan arbitre soufflé na ama bu yaraax booy ñaambur ndeysaan xale yaa ngi noonu di bëree sixième combat bi la journée Ouzin production ndeysaan di doomu géejawaay moo ñu fi woo sixième combat baa ngi noonu dox ci amaa bu yaraax ak booy booy ñaambur ama bu yaraax moo nekk nii moo ngemboo weex li ndeysaan diggante ama bu yaraax ak booy ñaambur xale ngi noonu ama bu yaraax booy ñaamur xale yaa ngay lewtoo ca kaw ndeysaan ñaari ndaana eh ama dugal na ku léegi moom ama bu yaraax mbooloo mu bari la fi indi ndeysaan eh, eh daa waane mbooloo mu bari la fi indi moom ama bu yaraax ma ngay ma ngay bëree booy ñaamur ndeysaan ama bu yaraax booy ñaamur ñaari xale yi ten jekk na macha allah oh di nuy Sénégal ñëpp ñu leen di siyaar di leen bu yaraax booy ñaamul. diggante Ama bu Yaraax ak Boy Ndiambour ndeysaan Ama bu Yaraax Boy Ndiambour Boy Ndiambour xale yi xale yi dañoo dañoo bëgg a songoom xale bi la muy lewtoo ca kaw ndeysaan xale ba door na woon ràcc na ko moom Boy Yaraax eh takk na ko Boy Sa na de Sa Ndiambour mu ngi ut ngembu Ama mu ngembu waaye amul Ama jàppal ma ko kër fii xale ba bañ na xale bi dafa waane. ndeysaan xale bi dama waane ma koy tël éé eh, fañ eh. koy yegg baanu daanu ndeysaan dëgg na ko mbot mag ciy génn arbitre génn na ne si digg géew bi ndeysaan ama bu yaraax ak jal ñambar xale bu waane la ba pare mbooloo bu bari la fi indi ndeysaan oho bu yaraax booy ñambur am na lu ko dal ma ngay dem ci ardo ba moom bàyyi ñambur daa jël ku nàcc na ma nga jem ardo ndeysaan Ama bu Yaraax ak Boy Ñambur dem nañ ardo ndeysaan sixième combat bi Ama mujj na daan par décision arbitre bu Yaraax six combat moo jàll ndeysaan waaw Ramdan bëreegul de